ñun ñëpp ñu ngi lay jaale jaale bu mat sëkk di métti lu soxna si nga xam ne mag la ci woon ci ñun la woon kilifa la woon ci ñun ñu ngi wax ne yàlla na ko baayam teeru yàlla nekk ci weti baayam yàlla na fi géej yéen itam yàlla guddal seen fan may leen kàttan wu bëree bëree bëree bëri ba ma ngeen eggali mission yi bàyyi xalifa bii nga xam ne ku ne xam ne ne mi ngi ko wéeroon ci xam-xam ci xam-xam bu wér bu sell mi ngi ko wéeroon ci ti tijaaniya bi nga xam ne moom rek la wasiya ak xam-xam ne nit ñi nañ ci jublu comme ni ko Mawlana Cheikh Ibrahim Niass defee woon. nee na kontaan nañu lool fa kontaan yëpp. dikk gi ngeen ñëw. nee na ñëw gii ngeen ñëw ba ci moom. ñëw jaale si suñu mag. ñëw jaale si seen mag aji Fat Samb Niass. xam ne li doon liggéey tey moo doon xalifa bi tey. xam ne tey boo nekkoon ne. bu nekkoon ne tey moom góor la woon tey mooy xalifa bi kon yéen a ngi ñëw ñu ne xalifa bi lañuy ñuy jaale si. rawatina ànd xalifa rawatina nag li ko gën a bégloo gën leen ko kontaanloo nag mooy ànd ak maam xalifa mii nga xam ne mooy borom kër gi di rakkam di léppam. Ahmed Ndiaye rahma di doomam di sëtam di xaritam. Euh, mii nga xam ne kër gi. léppam kër gi la. léppam kër gi la. ni nga ko waxee. nee na ni nga xam ne rek noonu laa ko waxee ci kàddu yi. bu fi déggee aw aw yiw. mu ne bu fi déggee aw yiw. dana fi ñëw. kenn du ko fi jiitu ci ñi fi njëkk a ñëw la bokk. safaan ba bu ko fi déggee dana ñëw. maa ngi koy kon mi ngi nee na Mouhamad Ndiaye mi ngi lay beral nuyoo xalifa bi nee na mi ngi lay beral ak nuyu. ki dem. nee na ki dem nag. fekkoon diis na ci ñun. fekkoon na diis na ci ñun. tey woyof na na ndax seen taxawaay ndax kenn ku nekk jàpp na yëkkati mu woyof. kon gërëm nañu. nee na gërëm nañu. sant nañu sant nañu. ne ko. na naxal na président ne ko. ñu ngi ko koy jaale. nee na ko koy jaale. ni ñu ko jaalee. ni ñu ni ngeen ñëwee jaalee ko ci turam ak tur parti beeg yëpp. noonu lañ taxawee famille Niassène fii ci kër maam Khalifa Niass noonu lañ taxawee kër delloo ko njaalam. nee na ñu ngi koy delloo njaalam. tànk yi ngeen ñëwee. yal nay xiw yaa rabbi yi ngeen di delloo yal nay faruk bàkkaar ki nekk ci bopp réew mi nag yàllaa ko fi taaj kat yal na ko yàlla téyel boppam sàmmal ko boppam yéen itam sàmm seen diggante neex lool ba mel ni mburug soow